kooki nag <clears throat> nga xam ne rammu gi muy rammu mbindeef yi du rammu moo xam ne rammum alaxira képp la rammum àdduna ak alaxira la loolu moom nit ñëpp teg nañ ci seen bët léegi su ko defee nag kon ki nga xam ne nii moom seytaane bëgg na koo gàllankoor lam bëgg sa moom moom muy seet yoon wu mu ko jaarale ba man koo am mooy day dox digganteem ak Serigne Touba woyfal pas-pasam ba muy ragal ay tawat ak am yu muy wut Touba gi nga xam ne mboolem murit bu faatu la ngay dagaan suñu borom mooy ñu indi la Touba ngir nga xam ne su borom rus na Serigne Touba ba bu boo fi egsee dootu la xool ci say jëf ak la nga nekke wala jëmmi Serigne Touba mi nga làqu la yàlla séq ak Serigne Touba yàllay xool ba jéggal ak loo mën a def murit bu nekkoon war ngaa fexe sa pas-pas dund dem Touba dee dem Touba dëkk boo xam ne nag boo faatoo fa nga jëm boo xamoon ne sax tey jii tey ngay faatu war ngaa daw wuti foofa ba faatu fekk la fa kon ku dox sa digganteeg dëkk boobee pexam seytaane la leneen la ci topp mooy suñu borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum suma turadduuna ila alimi alxaybi wa shahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun yow Muhammad waxal nit ñi ne leen xul inna al mawta alladi tafirruuna minhu nee leen dee mi nga xam ne da ngeen koy daw yéen nit ñi fa innahu mulaqikum day day dajeeg yéen fa ngeen jëm foofa la jóge su ma turadduuna ilaa aalimil ghaybi wa shahada topp bu ngeen faatoo ba noppi ñu delloo leen ci yàlla mi nga xam ne mooy ki xam li feeñ xam li nëbbu fa yunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluuna bu boobaa mu di leen nag yee ca la ngeen nekk woon ci àdduna nga xam ne kenn ku ne su borom moo la gën a xam la nga nekk woon ci àdduna te kenn ku ne da nga faatu dellu ci yàlla kon dee mëni su koo daw ñaareel ba suñu borom waxet waxaat ne iza jaa ajaluhum laa yastaqiruuna saatan wala yastaqdimuuna saa bu ab dig jotee ci ab jaam du ñu yeexal wenn waxtu duñ ko gaaw a saa soosee kon yàlla du mere kenn rey ko te waxtoom jotut waaye ku sa waxtu jot kenn du ca yi dara loolu bu ko nit ki gëmee kon euh, ñu la dawloo Tuubaa nga ne da ngay daw ay tawat ba doo fi dugg si léegi su ko defee nag leneen la ca topp mooy dëkk bii nga xam ne suñ Tuubaa ci boppam yàlla musal na ko moom ma sëriñ bi moom waxoon na suñu borom ne ko nafsi wa diini suma ahli wal walad wa maskani lakk wadiatun abat dénk naa la sama jëm dénk la sama diine ak sama ñooñ dénk la samay doon dénk la sama dëkk bii yàlla téyel ko ko mu ne suñu borom wajaal xarimana xariman amina wukun bi xafdihi kafilan doomina na nanga def sama xorma ji xorum ji mooy xorma joo xam ne ju am sécurité la yaa koy aar waaye wukun bi xafdihi kafilan doomina yow yàlla na nga warlu kaaraange bu ko dénk menn malaaka aaral ko sa bopp yàlla nangul loolu Sëriñ Tuubaa nga xam ne kon suñ tubaa mucc na daal di wax suñu borom ne ko wa aafi nafsiya wa aafi waladi wa aafi maaliya wa aafi baladi na nga jàmmal sama jëmm man sëñ tubaa jàmmal samay doom jàmmal lépp lu ma am waaye jàmmal samam réew yàlla nangul loolu sëñ tubaa defal ko mu wax ne najayta nii min makri ahlil makri falakka min niya dawaamu shukri yow yàlla musal nga ma ci pexem pexekat yi kon saxoo naa di la sant falakka min niya dawaamu shukri wax suñu borom ne ko najayta man biya taallaqu maan min alchayatini fa shukri yasmaa mboolem ko aju ci man musal nga ko ci seytaane kon ku def taaluk ci ci Sëñ muy dëgg seytaane amul ci yow aw yoon kon murit boo xam ne daa tudd murit mbaa muy riirandoo ak a yox-yoxi la ñuy dugal ci am xelam Tuubaa boo fa demee nangam dal la ngir bëgg mu maj bañ faa dem su demul Tuubaa nag lu koy daq man koo jàpp sëñ Tuubaa di wéeruwaayu bu yàlla di yiir kaaraangeem ku boo xam ne daa waxoon na ne amana amarani rabbi an usarriha bi annani maraasun waximan wa masa fa man araada al xayra fii kilta yi daari ni fal yalus bii yàllaa ma digal ne naa wax mbindeef fi ne leen maay wéeruwaayu bu yàlla di laquwaayam di ñagam ku bëgg yiw àdduna ak alaxira na ñëw wéeru ci man kon ku bëgg dox sa digganteeg wéeru ci sëñ Tuubaa kookee moo la bëgg a toroxal moo bëgg lu mu lu mu lu mu jéem ci yow mu sotti nan lànk loolu nan xam ne loolu mënta am Cheikh Mamadou Fadal mii nga xam ne ba mu ganee jamono euh, la la la la la sëñ tubaa daga moom sëñ sëñ tubaa dafa dagaanoon borom ngir mu indi ko ci ci biir mbooloom mii mbooloom sëñ tubaa mi ngir xam ngëneel yi yàlla denc ci moom ak yërmande ak i xéewal nga xam ne euh, ba njëdd li fi nekkoon wax naa ko sànq gis ngeen taw jooñ na mel nga xam ne ku masa dal jaar da ngay def rek ba faatu kookee ba nee jeex na la jeex kon kooku bisam ku aw ay di dàq boo làqu see ci moom da ngay mucc lànk leen lii ay politique la pexe yuñ bëgg dugal ci àdduna bi la si àdduna nag jéngi lislaam moom tënkoon nañ ko bu yàgg sëñ tubaa képp ko tinki te ba mu ko tinkee daa boyal lislaam lislaam li fekk mu ngi ci biir kër sëñ tubaa day mucc léegi nag su defee kon feneen lañ koy rëbbi feneen lañ koy fiire waaye du fii kon murit yi nañ bokk lànk ñun ku bëgg a rëbb lislaam bu mu jaar ci nun ak fiiram bu mu ko jaar la ci nun nan lànk nan gëm sëriñ tubaa yaakaar ko wóolu ko doyloo sëriñ tubaa wéeru ci moom lii lépp ay pexe la te dara mënu coo sotti te sëriñ tubaa mooy raxal seen fiir su ko defee kon loolu nañ ci yow bu baax a baax loolu laa bëggoon murid yépp képp ku yàlla dimbali ba nga jot ci audio bi maa ngi lay dagaan ci barkab Cheikh Mamadou Fadal mu tedd mi nga jàllale ko ci mbokki taalibe yépp ñu bokk ko yëg xam ne lii pexe seytaane la yoo xam ne nii seytaane moo ko tëral waaye du antu